waaw moo moo waaw moo doon ni moo di jàmbaari Cheikh Ahmadou Bamba jooju leen di Serigne Abdoul Ahad Mbacké ngi wéy ci kër yi dem di leen seeti ngir nag daal leen féddaliwaat suñu kóllëre daal di waxtaane ki nga ni mooy Serigne boobu leen di Serigne Abdoul Ahad Mbacké tey nag ñu moom la ñu di ñëw seet si fekk fi doomam Baye Djili Mbacké ñu bëggoon koo bàyyi rek mu daal di ñëw ak mbokk internet tey seetaan daal di ci maam jamono jooju la ak ren nan lañ ku ne xam ne ndigal rek moo am solo. jëfee ndigal rek mooy li am solo. jàng alxuraan jàng xasida bi ñu toggee xéwal yi yëpp ñu ko yóbbu ko ci penc kër yëpp ak ndax moo waral dajaloo loolu lu baax moom question da ngay lu baax di ko foog jamono mooy soppi bi comme ko ci beneen boo xam ne mooy lu baax moom waaw jamono bu ci nekk lu mooy soppi dajaloo nekk moom la ko defee ci anam bu nekk ñaar ñu doxal ko noonu la jàng alxuraan jéem tëgg benn yóbbu ko nga xam ne anjaay soo ko paree nga xam ne ko yóbboo ci xëy na jamono boo liggéey jamono dana soppi continué ko ci nekk laa doon ndax man ñaan yàlla waasaa bu ñëwee mu am tànk kanam dana am tànk ginnaaw jaamu bi xëy na yàlla dogal te comme suñu borom nii la ko dogal mooy diggal te du dogalu suñu borom day taay ba ñu jëm joxe diggal lan ngeen mën a wax ci sëñ bi li ñuy fàttaliku tey. waaw nga si jiitu mooy comme ni ñu ko ñaanalee jaar alxuraan bi yëpp. dinaa mm-hmm. béy ñu ko. kon xam ne liggéeyam ci Serigne Touba. taxaw taxawaay bi taxaw ci dëkk bi. dafay daal waaw ku nga xam ne lii des na rek. Mm-hmm. loolu bu ñu andee moom ak Serigne bi wala njabootu bi yëpp rek. Mm-hmm. waaw kon xam ne dëkk bi taxawaay yi ñu ko taxaw mm-hmm. nga xam ne moom diggante ak seen bopp ak sax beeg taalibe yi mooy yëpp moo war a képp ku ñu tudd di ko tudd rek mm-hmm. waaw mënuñ di dégg ci leneen loo xam ne ñu dul jëfin ndigal ñu la ciy dégg wala mm-hmm. leneen moo waral ñoom ku ne war na ko def waaye ñoo ci war a jiitu parce que loolu dox moom yoon noonu lay mos ci doxee moom nit ñi ñooy def te xëy na yàlla jël ak ko mën na ko mën doon seen tawaam lépp dañ jëm te soog a ñëw si alhamdulilah alxuraan ñu def ko sëriñ bi sax day defoo ko ngir nit ñoo nga soppoo ci la nga daan mooy benn def yi nga def yóbbu ko mooy a daan def dëgg lépp te pas-pas kon te ndigal li mu ñëw day wane ne def gi ñu doon defi pas-pas moo tax ñu di participation ci barke bi